ngir top sen chaîne Jazboul Mouride demal Google tàppi Jazboul Mouride bésul ben émission mu yóbbu YouTube ci page bi nga abonné té activer cloche bi ngir am notification sa ñu dugalee suñu vidéo sen chaîne Jazboul Mouride di ngeen ko amit ci Facebook Instagram Twitter Jazboul Mouride mi ngi ci waar wi ngir liggéeyal mam Cheikh Ibrahima Fall. li def moy sant Yalla ndax sëñ bi liggéey bi mu doon liggéey ci xasida yi yegg na ci mom fo xamné ku ci doon dara war ngaa sant yàlla muy doomam yu baax yi nga xam ne ñoom la téye ñu nekk mel ni ñu nekk rassemblement mu leen liggéey loolu liggéey bu jafe boo xam ne xam-xam lay laaj lay laaj teggin lay laaj ak jaayante ñu def ko ba mat sëkk yàlla defal ñu def ci tawféex muy xasida yi ci boppam ci biir fi nga xam ne mooy université bi loolee nag mu mel ne ñun ñi la ko bëgg àndal loola kon di liggéey boo xam ne yëpp dañ koy fab rek tàbbal ko ji bii nga xam ne moo moo moo moo ñu fi indi tey daje fi ñu sant yàlla bu baax. tey sant fab googu nag dugal ko ci cantu Baye Fall yi di leen santale tey ànd ak ñoom di séntu ak di yaakaar li nga xam ne moom la sëñ Touba dële ci ku koy liggéeyal liggéey bii bu yàlla barkeel la. ndax fukki at yi ci ginnaaw yëpp bu ci ne lim bu ne bu at ma delsee day yokk ren jii yokk na kon ndax li fi ñëw daaw xam naa nu mu toll te li ci tege téeméer bu tegal la kon war ngaa xam ni liggéey bu yàlla nangu la bu sëñ Tuubaa gërëm la te nag moom noonu la war a demee tam ndax eh, li ñu def ci yoon wi yëpp seex maam seex lañ koy royee kon su fekkee lu mel nii am na wane na ni yéen a ngi dundal a ngi dundal bu baax a baax lu ñu fiy def rek ci moom lañ koy royee kon kon taxawaay bii rafet na lool. gis saa bu liggéey bi ñëwee sëñ bi day yàble ñu indi ko fii. ci waaw. maanaam de sëñ jox jox la liggéey bi nga xam ne njabootu Cheikh Ibrahima Fall ñoo ko liggéey. waaw loolu loolu itam day def sëñ bi moom bu bu bu bu lijjanti bu yomb rek la ci gën a bëgg. moo tax bi mu mu muy def loolu. loolu ngay wax. incha allah ñu ci sant bu baax a baax. di sant bu baax a baax jërëjëf. digganteeg maam Cheikh Ibrahima Fall itam. wax dégg nañ ne am nga Cheikh Ibrahima Fall. waaw kay mu ngoog waaw am naa ko tudde naa ko doom de maam Cheikh. Hmm. alors de dogal na ko moom. <laughs> tudde naa ko doom. te te maam ma ma ma samay bokk defal na leen lu ne. Mm. tarbiya na leen mm. am ci ñu mu seexal mm. teral na leen bokk ak ñoom alaxira googu nu jëm alaxira googu nu jëm xam xam xam xam nañ ko bu baax xam nañ ko bu baax waaye ngërëma sëñ Tuubaa rek lañ fa soxla waaye nee na li ñu koy xam xam ngërëma sëñ Tuubaa rek moo fa dàqal àjjana ne moo ñu fa moo ko fa dàqal àjjana moom waaw waaw te te te la nga am na am na lu fa dàq àjjana nag te nee na am na lu fa dàq àjjana loolu nag bu na ku am ngërëma sëñ Tuubaa am ko nee na loolu ku am ngërëmal sëñ Tuubaa am ndax ngërëmal yàlla rek la mooy ngërëmal ngërëmal yàlla moo dàq àjjana moo dàq ngërëmal yàlla waaye ku am ngërëmal sëñ Tuubaa bokk na ci li neex sëriñ bi ci ñoom suñ la doon wërloo murit koo gis mu bokk ci is bu tarxiya faw sam xel nekk ci am naa murit ndax nuru ñee leen yéen ñu ñuy laaj ak yéen ñu ñu fi fekk fii ci mbul gii nga xam ne ci guddi yu metti la fi euh, liet naab sëñ Touba def lii muy màgg ni te dootul dootul wàcc ba àddina tukki day gën a jëm kanam lépp a ngi màbb wutal si fii fii ñu ñëw tey du ba dara waa ñu ngi sant yàlla bu baax a baax xaside yi nga xam ne moom la waa isbu taxiya féetewoo di ko liggéey li muy li muy baax baax ak li ñuy jàmbar jàmbar dañ fee fekk si koo xam ne du doyal xasida wax na ni jàng dafa metti moo tax ma sàkkal leen jadwal boo xam ne suba ak ngoon waaye diggante bi bu mu fay ndax dama dul doyal xasida kooku ku am taw féexi mu liggéey loolu ci loolu da ngay sant yàlla waaw ndax di dem di wuti dara fi barab te la ngay wuti amu fa musiba la waaye di wuti dara fi da fekk fekk fa lu ëpp la ngay dox loolu mooy xéwal kon biñ koy jàng yëpp lu weesu li ma ci xam daal laa wax lu weesu tàggat gi lim ci jot a defagum def loo ko mosuñu koo xalaat moom mi am loolu di ko xalaat nag fu mu jëm na nu yóbbu. keroog bu ma géey yëgee taxawal ngeen lii euh, keroog laa am tawféex ci sama xol ànd ak yéen ak sama xel. nuy dox ba ak ba ci jataay bii tey euh, daal di digle ne loo weesu na ko xeeb ci li nga jëm. kon maa ngi leen di seereel ne ma weesu xeeb naa ko ci li ma jëm bu ma moomal sama bopp eh, kon ni ma ko waxee léegi rek kon laxasaayu naa bu yàgg nekk ci seen biir waaye nag bu jëmm ji laxasaayu si tam xol bee xel mi moom laxasaayu na eh, man kon foofu rek laa ko yemale ndax eh, boo ma fi weesoo damay jàll <laughs> maa ngi sant bu baax a baax a baax leen sant bu baax di leen gërëm fas yéene ko ànd ak yéen rek nag ba ca këroom borom liggéey bi ah incha allahu itam boo ci amee ndigal lépp fa la may fekk eh, kon noonu rek la mais na seen xel daal bu baax na ngeen am yaqin ci ne borom liggéey bi moo ne seen kanam benn seconde eh, du ko wute. kon loolu rek laa ci mën laa quatre 1980 sëñ Abdou toog na mu toog ma toog am ñu ma àndal mu ne sëriñ bi ci ñii laa bokk sëriñ bi ne ko yow sëñ Muntaxa gën a am fula bis boobu ba tey jii lu fi sëñ Muntaxa defaat ci suñu biir lu mu rëy rëy rëy bis boobu ba ëpp doole ci ñun ndax ke ko seede moom sëñ Abdou moom itam wax na ni. seen mbooloo mii bu doon mbootaayu àddina ci lay bokk kon loolu fekk si na waxam ji li may jëkk li may def mooy sant ci tur yoonu murit yëpp di sant eh, jëmm ji toog ndax lii ni bëgg a def kat am na loolu xam ne man maa ko war a wax ndax sunu borom bu la defaree da koy sant lii nuy bëgg a def addiyaama ci jëkk kon joxel na muhajirina yëpp kon ñun lan saari nañ jóg te bu nu kenn sen li ni deutmal kenn du ci yalwaanal seigne Tuubaa noonu sun suñu kattan waru ko fekke sun ala sun dara waru ko fekke ndax dañuy xare té té mom néna na wax na fii ne danoon ko gañe ngir top sen chaîne Jazboul Mouride demal Google tàppi Jazboul Mouride beusul ben émission mu yóbbu YouTube ci page bi nga abonné té activer cloche bi ngir am notification saa ñu dugalee suñuy vidéo sen chaîne Jazboul Mouride di ngeen ko amit ci Facebook Instagram Twitter Jazboul Mouride mi ngi ci waar wi ngir liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall